sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad mbokki Kun Fayakoun TV yi ñu ngi leen di siyaare di leen baal xaq te di leen ko baal di leen ñaanal nag jàmm ak tawféex di leen wax ngeen abone ci seen seen bi nga xam ne ni yéen a ko bëgg seen bopp muy Kun Fayakoun TV bu saa boo leen gisee vidéo Kun Fayakoun TV ngeen abonné foofu nga xam ne seen boobu def leen di jariñ nga xam ne seen boobu seen boo xam ne na pour njariñ moom moo ko tax a jóg yow mi nga xam ne nag yaa may seetaan ci seen bi te fan yi yëpp nga may wax wàllu kàttanu sëy wàllu goo xam ne booy sëy da ngay gaaw a daanu walla wàllu woo xamee ne sa ndoxu màndi wu dëgërul wala war ne boo xamee ne saa booy sëy sa awra dafay nooy li nga xam ne nag moom mooy dëgëral awra awra bi ba du gaaw a daanu nga xam ne du ay reen du sunguf saafara la saafara buñ ko waxee muy alxuraan nga xam ne day sifaa loolu ba mu dañ nekkul loo xam ne daf lay calmer calmer la ay weer wala calmer la ay nii wala saa booy rek nga am yëg daf lay faj mooy sifaa bi nga xamee ne moom lañ defar nga xam ne ne képp koo xam ne da nga am kàttanu sëy gu mën a doon boo jilee sifaa bi eh, loola daf koy faj traité ko ba nga xam ne ni yow dootoo yëgati gaaw a daanu dootoo yëgati awra bu nooy dootoo yëgati maanaam doo gaaw a yëg plaisir ndax am na góor ñoo xam ne ne saa boo xamee ne ne mën na di sëy waaye duñ yëg dara am góor ñoo xam ne seen màndiwu seen ndoxu màndiwu dafa yolom moo tax e, saa buñ séqee seen borom e, seen soxna pour ñu am doom dafay xaw a jafe nga màndiwu boobu nag li nga xam ne ne tamit mooy saafara bi nga xam ne ne daf koy toggaat togg ko ba mu normal nga xam ne ne saa bu si yàlla defee sutura bu demee fa mu war a dem rek Ah, am dana si taxaw kon nag ah, mm, kii bi tamit foo nekk mën nañ la koy yónnee ah, foo nekk mën nañ la koy yónnee ndax trente mille francs rek lay jar mu fa seng lépp li nga xam ne moo nekk si sa wàllu kàttanu sëy bu génnee ko ba mu seet wécc ba nga xam ne jigéen ñi nga xam ne duñ yëg bànneexu sëy ak jigéen ñi nga xam ne ne seen règle dafa tëju tëju bu yàgg muy absence de régle bi am na bi absence de règle bi moom sa règle bu tëju woon fukki at boo jëlee absence de règle bi règle boobu ubbeeku wala ngay sëy doo yëg dara wala sa kanam tooy yooyu am na fi jigéen gu si soxla rek boo nu contacter si numéro yooyu ndaw ñi daan la ko indil foo mën a nekk incha allahu rabbi leen wax nag ngeen di abonné si chaîne bi tey partager vidéo yi nga xam vidéo bu boo leen jot rek ngeen aman si am njariñ fi amaanillah ba fan